nous dañu dañu jóge léegi ci signer convention ak ak ak Sindolal coopérative Sindolal coopérative bu euh, dans le dans la commune de Niamone ci département où euh, Bignona mu nekk nag convention bi nga xamante ne euh, dafa soxal population yi soxal na population yi soxal na ñiy bokk ci coopérative bi ndax dañ ko yag. bëbët depuis euh, plus de dix ans coopérative Bangi ngi taxaw di euh, pour pour vraiment pouvoir voir euh, bokk ci coopérative bi mën Nous am intégré leen ci cadre du projet 100 000 logements bu ñu le ci projet 100 000 logements nous mëna bénéficier ci dispositif bi ñu euh Nous xam SAFRU SAFRU dina accompagner ci aménagement yi xam euh, fonds pour l'habitat social bi nga xamantene dina tek loxo coopérants yi ndax mën leen accompagner ñu teel a mun jot sen financement pour euh, mën a teel jot ci kër yi mu nekk nag approche bi nga xamantene ne euh, ñu ngi koy opérationnaliser nii nii nii mu nekk ci ñaari fànn fànn bu njëkk bi mooy déjà dans le cadre du projet Prosebid nga xamante ne ñaari composant la benn bi day restructurer ay bidon ville beneen bi nag nekk dañuy anticiper ay bidon ville te yaakaar naa ni anticiper ay bidonville dem ci commune Niamone bi nga xamantene dafa jege Bignona té Bignona amatul suuf tok fa def fa projet bi anticiper euh, euh, de dëkkuwaay yi ba nga xamantene ku ci nek ding ci mëna am am dëkkuwaay bu sel ci cadre tamit bi nga xamantene un dans un cadre adéquat ni ñu koy waxee ci anticipation euh, foog naa ni mënul dépasser lolu mu nek tamit ci benen fan bi nga xamantene dañuy wax territorialisation des politiques publiques ndax bu ñu newee projet 100000 logements yemul kese Dakar euh, dinañ ko yóbbu ci département Bignona te mu mën a lu ko war a gën a mën a euh, yombal mooy bu ñu waxee ISEP ca Bignona wax fa activité wax enseignants yi dinañ soxla fi ñu dëkk te ISEP bi nekk tamit ci cadre bu gën a global bi nga xamante ne ñu ngi wax waxu agropole sud. agropole bi nekk pour toute la région donc mooy pôle développement yi ñuy wax yi nga xamante ne dafay am activité waaye fu am activité yi faw ñu dem fa tabax ay dëkkuwaay bu ko defee ñu mën a anticiper ci euh, de future problème yi nga xamante ne euh, problème bu dëkkuwaay dafay am ñu kontaan torop tey ci euh, jéego bi ñu def te jëlit engagement moo xam coopérative bi la moo xam aussi ministère bi pour vraiment ñu def lépp li ci war bu ko defee ñu teel a del jox caabi yi